la ñuy waxtaanee. waaw monsieur Abdoulaye Fane moom mooy président UNAPES union nationale des parents d'élèves et d'étudiants bu Sénégal ni ñu ko doon waxee sànq nag muy njàng meeg njàngale mi jamono ji euh, baccalauréat bi. mujj naa mooy examen ginnaaw entrée en sixième ak CFA e, bac bi kon moom mooy deuxième examen bi gën a mag boo xamante ne ndongo yi ñu ngi koy amal jamono ji mhm. fi nga xamante ne kon mooy ci lycée technique yi écho yi ngeen am déjà ci déroulement épreuve yi lan la mhm. bala ñuy tàmbali dañu leen di nuyu di leen sant te ñi ngeen ñu prier tey ñu dal di ñëw wax ci wàllu njàngale njàngale mi ndaxte bu ngeen ko seetloo euh, ñaar fukki fan ci weeru août bi la processus bi commencé ci classe yu tout tànk yi ñu doon koy wax CM2 def nañu yàlla jàppale ñu ci ba mu jaar yoon malgré quelques tolof tolof yi nga xam ne am nañu ko ji te xam nañu ko waaw surtout que la foofu laa bëggoon sax dana na ay centre d' examen naa woon benn am na Géejawaay am na Pikine mhm. même bu ah. waaw xam nga ne da nga ne Géejawaay ne Pikine <laughs> mhm. te Sénégal def naa ne 196 la lu fi nekk ci école moom bari na te comme ñu koy waxee souvent Euh, les trains qui arrivent à l'heure on n'en parle pas souvent euh, am na naam metti na ñëpp gis nañ ko waaye nag teewul quand même. mais ñëpp yam quand même ca ca yàlla yam fi aussi ci wàllu loi ba nga xamante nañ nan defee ñeneen def ko ca yoon. waaw war nañoo mën def en sorte aussi ñu bañ leen a léser. waaw waaw loolu moom am na te ñu ngi ciy bàyyi xel te ñu ngi liggéey ndax loolu bañ a amati waaye nañu jàpp rek li ko indi c'est la main de l'homme parce que je crois que peut-être information yi bi mu demee ba jàll gis nañu ne taw bi géejawaay keroog defe naa ne géejawaay nga dëkk xaw je ne sais pas mais géejawaay ay 3 heures du matin le commencé taw parce que boo analyser rek bu fekkee ne 3 heures du matin le taw bi commencé ñu toog ba 11 heures et demie la ce suba sa ndox mi dugg fa ça veut dire que da doon wis rek euh, voilà journée bi <laughs> waaw pratiquement ba ñu defee gëstu nag xayma la ñu gis ne dafa am kenn ku bënnoon mur bi ndox mi ci benn déeg bu nekkoon ci ginnaaw ndox mi fekk fa xale yi loolu moo indi mbir mi. moo tax mu waaw waaw xam nga rek peut-être dafa naroon a inondé yeneen kër yi. bon ci inconscience mu dal di na non mu dal di fekk ci biir classe bi et occasion la aussi pour ñu saluer véritablement le corps enseignant dafa nekk hmm. parce que metti woon na lool mais jàppale nañ def nañ de telle que quand même hmm, hmm. épreuve yi bi mbir mi dugg ndox mi dugg fekk na daanaka pratiquement ñu terminer seen i épreuve ci wàllu at kii bi nag semaine bi ngay wax effectivement semaine bu ful la. léegi noonu yam ci tuuti ci parce que am nee nañ aussi nemmeeku noonu erreur ci épreuve mathématique yi. Mm-hmm. yéen parents d'élèves yi gisoon ngeen même constat bi. waaw kooku moom xam nga comme c'est des aspects très pédagogiques am na ñaari kii jàngat am na ñenn ñu ñuy wax ne ñoom ñoo ña ña déposé épreuve yi ñoom ñoo ko def dal di maanaam lu ñu waroon a def bénéfice ñu dal ne perte la. donc euh, duñu ñu ci xuus. yenn xuus ci gone yi est-ce que duñu ñu léser xale yi aussi. effectivement hmm. euh, amnañu mu léser. ah oui parce ah que xamuñu xamuñu genre preuve yu mel noonu. parce que amnañu né ay pièges de questions pièges yu ñu duggal la ak yu kenn xamul mais li ci am solo rek ñun demandé nañu au ministère aussi que ñu xaw a regardant aussi ci ci correction yi. Hmm. contexte bi sax moo ko laaj même bu sax walu euh, peut-être épreuve bobu ñun UNAPES dañuy demander ak contexte pandémie bi am bu fekkene dañuy euh, quand même euh, def ay correction war nañu mën a def de telle sorte que xale ñu dal di lever un peu le pied. pour permettre xale yi véritablement loolu mbaa du indi problème. parce que loolu commencé nañ ko déjà ci classe intermédiaire yi. classe intermédiaire yi ak euh, xeetu mooy li nga xam ne nee nañ dañuy jàll classe. mais est-ce que du am conséquence ëllëg laay wax bu fekkee dañ doon yoxamal moom kay nan leen jox li nga xamante jàng. yolomal mënul ñàkk dans la mesure où boo boo ci réew mi ci secteur yëpp de la vie actuellement lépp ñu nga yolomal di jéem a kii aussi nañu jàpp aussi ñun xam nañ ci dara ñi ñu fi yoree te ñu gérer le euh, les aspects pédagogiques du ministère. Mhm. vivre nañ fi ay situation yoo xam ne grève 5 cinq mois yoo xam ne yi c' était en quatre euh, deux mille quinze je ne sais plus te régler nañ ko. il y a aussi que am na ay euh, activité de consolidation yoo xam ne bu fekkee dañuy ubbi le 12 novembre avant ñuy ubbi le 12 novembre peut-être dinañ ko def pour renforcer mais même bu fekkee ne loolu def nañ ko tamit c'est sûr que moom année bi fu mu jaar dina am ay impact ci enseignement apprentissage ah, mm. du préscolaire à l'université Le bac bi ni nak moom déjà ñi ngi ci série technique commencé nan ginnaaw suba inshallah bac général bi. Mm-hmm. constat bi ngeen def euh, sur le plan général. ci li nga xamante déjà moy épreuve bu tay ak tamit préparatif yi fu ñu ci toll. Mm. Euh, di wax ne rek peut-être dañuy profiter d'occasion vraiment di euh, féliciter encourager le professeur Sosé Ndiaye nga xam mom moy directeur de l'office du bac. ndaxte bi mbir mi amee ci début août bi. Hmm. def nañ benn réunion bu mag jam ñaajo euh, seen ministère composante système éducatif yëpp muy enseignants yi syndicalistes yi société civile yëpp woo nañ leen ñu daal di toog ku nekk wax xalaatam jafe-jafe nag mënul ñàkk effectivement mais peut-être euh, fexe na de telle sorte que au niveau des établissements centre d'examen yi mu am ay ce qu'on appelle comité de veille. comité de veille yi ko composé mom moy société civile bi ak euh, administration scolaire bi nga xamné lepp li nga xamné nous mom lañu wara mëna dajalé pour permettre à ce que euh, examen yi jaar ci yoon dinañ ko doxal et particulièrement le protocole sanitaire parce que nous dañ ci insister trop mm. ndaxte comme nous l'avons dit bala nga nan am mm-hmm. principe bi nga xamné bi le protocole sanitaire les dispositions relatives euh, à la prévention individuelle. yan garantie la leen jox ci loolu ngir mbas mi a laal ndongo daal yi ak jàngalekat yi ak ñi ñi nga xam ñooy surveiller. li ñu mën a jàpp rek mooy dispositif bi parce que ñun dañu am ay banqaas ci mm. ba daanaka gox-goxaan yëpp département yi am nañu ay banqaas te chaque fois ñoom dañuy remonter information fépp fu ñu xam ne. fa la xaw a yànqee bu boobaa ñu dal di jéem a seet nañ koy corriger informer autorité local bi administrative ñu accompagner parce que souvent dañuy bañ dañuy euh, santé et éducation particulièrement compétences transférées. là ce qui veut dire que les bokk territoriales yi ñuy wax collectivité territoriale dañ ci war a dugal loxo ñu mais comme lépp mënul parfait euh, au fur et à mesure nous vérifier et chaque fois fu ñu gisee foo xam informer l'autorité pour que nous jéem ko corriger mais actuellement au moment où je parle quand même disposition yi gis am nañu yaakaar ne peut-être war na mën a jaar dans de très bonnes mais nag comme je l'ai dit souvent depuis quelque temps principal problème bi nga xam ne bii du ñun si su ñun la dépendre moom mooy wàllu yàlla subhaanahu wa taala moom mooy taw bi dinañ ci bàyyi xel et aussi peut-être loolu aussi comme li amoon tout récemment à Guédiawaye ñaan yàlla rek peut-être bu mu mu mu mu ci ci ci kiiwam mu dal di jàppale ba loolu ba am ay gàllankoor ci. Chérif mi ngi wax ni sànq gune yi est-ce que sacrifié wuñ leen suñu yombalee affaire bi. mais man damay ñëw ci mbirum classe intermédiaire yi. Mhm. par exemple élèves yi nga xam ne dëwër ñoo war a def terminal mhm. dafa mel ni dañoo sauté classe première yi. Mhm. ñetti weer lañ ci jàng. dëwër ñoo war a defi bac yéen loolu est que déjà ci critères yi nga xamee ni lañu sukkandiku ngir jàllale leen. est-ce que bokk nan lañ koy waxee ci sax boole nañ leen ci waxtaan bi. Mhm. ak solution boobu est-ce que yéen enchanté na leen. waaw Cheikh Tidiane xam nga euh, dafa am commité comité pédagogique sous-comité pédagogique bu nekk au niveau du ministère. parce que nag nit ki aussi comme yéen seen xarale yi journaliste am na yenn yoo xam ne yéen la ngeen ci xam ñun mën nañu ko xam. Mhm. ba tax na aussi ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ŋànk wàllu pédagogie bi quand am nañu confiance ci ñoom. Mhm. te comme ni ma ko def. c'est sûr que mon dina incidence et même ci carrière ci ci cursus scolaire u xale bi ñi nga actuellement des fi mm-hmm. du CIE jusqu'au jusqu'au supérieur dina incidence mm-hmm. li ci am solo rek quand même nous def de telle sorte que quand même muy am euh, ay consolidation mm-hmm. ay remédiation yoo xam dina permettre au fur et à mesure xale yi muy am peut-être ay euh, ay euh, outils yu permettre quand même mu mën est-ce que la génération sacrifiée mm ah enfin sacrifié mais problème bi daal moom mooy euh, li ma wax léegi rek. maa ngi revenir. Mm-hmm. parce que mu jaar ay enseignement à distance ak yooyu te ku ne xam na ni xëy na ñi ci bénéficier wala li ñu doon wane ci télé yi ñu koy jàngale ñi ci am accès bariwul. gis nga Chérif loolu ngay wax enseignement à distance enseignement à distance euh, cours en ligne ñun. je me rappelle c'était en début mars bi que le ministre de de l'éducation waxee. Mm-hmm. ñun ñoo jëkkat yëkkati suñu loxo ne loolu moom. mën na nekk waaye nañu bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñu nekk ci gox-goxaan yi nga xam ne dafa éloigné waxuma la signal télévision sax dañ ko amul waxatuma ak ay connexion ak leneen ak leneen mais sax bëggoon naa ñu ñu taxaw ngay dem sëñ Abdoulaye mm. gune yi nga xam ne dañoo nekk ci gox-goxaan yi wala gox yu fasante ko yi euh, nawet jublu examen gis nañu ñoom nawet daanaka sax ay abri provisoire la ñuy nekk wala fi ñuy jàngi euh, mm. day sori bu nawet bi duggee ñu mën a puus ci ndox mi dem wala ñu puus mm. ci ñax mi dem ndax itam xale yooyu bàyyi nga histoire rek ki laaju shérif bi est-ce que du génération sacrifiée parce que waxtu wi dana fekk ñu def bac ba fàtte jamonoy nawet ci all bi hmm. xalé yi def examen ça peut poser problème ndax itam xalaat ngeen ci côté boobu waaw man le terme génération sacrifiée sax ça me dérange dans la mesure où bu ñu génération sacrifiée dafay mel ni c'est du fait lii yàlla moo ko fi indi hmm. fi mu né ni situation yi ñëpp koy dund léegi ce qu'il faut faire mooy jéem a seet nan la ñuy corriger nan la ñuy arranger nan la ñuy kiiwee mais ñu wax ci kaawu xale yooyu ñi nga xam ne ñii dañuy am ay jafe-jafe. waaw pour euh, accéder nekk nekk fu sori. Hmm. tey peut-être ñu ngi waaj di def bac. Hmm. ñoom ñu ngi nekkoon ci ay classe euh, ay abri provisoire. Hmm. wala ñu dëkk ci gox yu fasantikoo yi ñooñu bu nawet bi jotee. pour ñu jàngi problème lay doon. donc ñoom bu nekkee ci examen période bii. Euh, ndax xalaat ngeen wala jël nañu ay matukaay ba ñooñu ñu mën a def seen bac bu def seen BFM te duñ ci am benn ca gàllankoor. foo faut dire que département yëpp quand même organisé nañu de au niveau des préfets ak CDD ak CRD yi ñuy organiser ak seen conseil académique yi am ci inspection d' yi. Mhm. organiser wu nañu ba cibler écoles yi nga xam ne yi c' est des écoles à moindre risque ñu mën fa orienter seen kii. loolu wax dam dëgg la parce que par exemple benn dëkk benn lycée boo xam ne mu nekk dans une zone éloignée pour xale bi war a jógee parce que ku xam région yi surtout am na yenn zone yoo xam ne yi ak nawet bu ñëwee nii pour nga yegg ci benn école am nga am na am na nu muy demee nga def un à 4 kilomètres. pour dal di fay parce que dafa am ay dégg yoo xam période bi dafay fees mhm. donc euh, aspect yooyu yëpp tenir nañ ci compte mhm. euh, pour mën permettre quand même xale bi mu mën a euh, nekk euh, vraiment à l'heure dans ci ci ay examen yeneen xale yi itam yoo xam ne amaana mën nañ jàpp ne mën nañ nekk ci ay jafe-jafe mooy gone yi nga xam ne dañu nekkoon ci privé bi gis nañu euh, peut-être am na ñoo xam ne am na lu ñu jot ci nguur gi mais am na ñoo xam ne dañu catégorie gis nañ leen ci tele bi ñu def mm-hmm. ci ay reportage ñu ne gune yi bu ñu fayul mm-hmm. du ñu duggaat ci école yi mm-hmm. te ñooñu peut-être ñi ngi woon classe intermédiaire bi Cheikh doon wax jàll nañu seen classe yi mais jamono metti na mbas mi wax nga ko nañu euh, gune yooyu euh, ñu mën a delluwaat ci classe yi jàngi quand même parce que seen avenir c'est c'est un peu en jeu. xam nga wàllu école privée bi dafa doy waar d'ailleurs ñun sax xam naa fan yi euh, dinañ def une sortie par rapport à ça et ñun nous on a été très clair on est du côté des parents d'élèves. Mm, c'est pas facile parce que mënuñu concevoir. nga fay kala loo jàngul. nga fay loo jàngul. mu ngi mel ni nga nga dal di ñëw benn produit ñu dal la koy kii ba pare te fe mënul nekk.

d'autant plus que l'État quoi qu'on en dise a fait un effort dès qu'on a fait un milliard peut-être pour euh, euh, le le après mais il bi foofu arbitrage. c'est vrai que subvention na école privée mais ci diggante parents yi école privée yi bëgguñ cee àtte danoo seetaan. que nga que ngay wax sur un plateau de télé je dit et c'était devant le directeur de la formation de la communication du ministère de de l'éducation nationale mais euh, école privée avons une fabrique de biscuiterie de biscuits. école privée dafa am mission de service public. parce que xalé yoyu ëllëg ak si ñom ñoy ngant ñoy de telle sorte que situation bi bu amee. Mhm. état bi amna division de l'école des écoles privées bu nek au ministère de l'Éducation nationale mom mo warona prendre en charge affaire bi. dal di mëna au moins saisir le ministère du travail ñu dal di leen wo jéem a nan condition mais moi, je ne peux pas comprendre qu'un état situation humaine nous depuis longtemps hein. et c'est l'occasion de le dire nous invitons le ministère et puis c'est pas le ministère seulement de l'éducation nationale il y a le ministère de l'enseignement supérieur à travers à travers les universités privées mhm. les instituts privés il y a aussi le ministère de la formation professionnelle il y a des centres de formation professionnelle euh, privés donc c'est tout un ensemble de départements ministériels il y au ministère du travail et même le comité du dialogue social le conseil du haut conseil du dialogue social mm-hmm. parce que aussi c'est une mission mission situation est bu actuellement l'enjeu c'est l'avenir des enfants qui vont prendre en charge ce pays-là Nous mm-hmm. mais nous entre privés mm-hmm. pour trouver une solution. moi je dis c'est très facile wax université yi SMS a dit que nous avons complètement wax distanciation physique. Mm-hmm. d'accord mais nous savons actuellement il y a un relâchement et ay résultats bu je donne un exemple man ma dëkk euh, ci village yi sor yi léegi ma dal di am d'office peut-être ça ne pose pas problème mm. mais bu fekké né yow tu es admissible au deuxième groupe nga dëkk nga déllu seen gox goxaan. amoo réseau amoo <laughs> kii. wala amoo téléphone. voilà. amoo téléphone mais mais ce qui veut dire que ñun ce qu'on demande mooy que bu bu résultat yi génne nañ ko afficher mm-hmm.

même l'application là même l'application là def ci kii bi pour s'inscrire mm-hmm. pour ak ay numéro mm-hmm. mais am na ñoo xam ne ñii bi ñu ko bi ñu ko exploité boo defee 4 0 rek automatiquement bi ñu xoolee sax numéro yi ñu joxee ci seen euh, ay convocation yooyu mm-hmm. boo ko tëgg bi ñu ci wootee duñ leen jot donc man doog ma la sax ci waxu téléphone boobu xam nga bu yaa ngi wax ci gox yi fasantikoo yi mais am na dëkk yoo xam ne da fay dem charge sa téléphone ndax parce dëkk bi du am courant da paas dem joxee fay 100 francs

comme statistique u mais 3 500 000 élèves ñom ñom ñom niom ne donc distanciation physique mom xel xalatuko sax parce que nous xam nañ né ku dugg ci classe yenn yi hmm. rhétorique hmm. da ngay trois élèves par par table hmm. comment gérer le protocole sanitaire c'est une question véritablement moo tardé ñëpp. waaw man espère que balaa boobu xëy na mbas mi wàññeeku. parce que salaamaaleykum waaw guérison yaa ngi université yi balaa mënuñ yem ci espérer foofu mm-hmm. instant bi mm-hmm. ñu taxaw xool. Mm-hmm. yan solution moo ci mën a am. parce que suñu demee xaar ba yëf yi yegg si. ñuy nekk di tergiverser duñ ci génn. non du duñ ci yegg sax parce que chaque année quand même day am benn séminaire de rentrée scolaire boo xam ne bii même avant daana am xam nañ ne ministère. de telle sorte parce que quoi qu'on en dise ce ministère de l'éducation nationale contrairement à l'enseignement supérieur moom très ouvert commune communauté bi dañuy participer dañuy demander seen avis. Mhm. c'est très important kon wax ci enseignement supérieur bi ndax ëllëg incha allah université yi dañuy tëjee bu mooy bu nga xamante ni moy mooy euh, bu Ziguinchor Assane Seck. Mhm. nee nañ nag par cohorte yu ci bëri lañ koy def jël par étape par étape mhm. étudiant yi moom démb génn nañ communiquer mu def seen ben genre confédération. étudiant yi nek ci les différentes universités publiques ne ñoom. ànduñ ci. yéen parents d'élèves lan mooy seen position ci reprise euh, université gis nga wàllu reprise bi. xam nga li ñu naan am na tolof tolof yoo xam ne yi dafa nuyu woon bu yàgg kenn fayu ko mm-hmm. ndaxte boo ko seetloo daaw actuellement am na benn problème bu taxaw moom mooy les bacheliers non orientés ñu ngi fii ba tey am na bacheliers yoo xam ne ils sont pas encore orientés. président joxoon na ndigal ñu jël leen. waaw conseil des ministres. waaw en tout cas ba mu ko waxee waaw waaw waaw. ñun daal li ñu constaté ñun y a des bacheliers non orientés te ñëpp xam nañu yaa aussi les universités privées yi nga xam ne yi dañu ay jafe-jafe. gis nañ sortie bi ñu defoon yi temps yi passé ak aussi même leen di xaw a doyedeel ci campus euh, scolaire yi nekk nga xam duñu mën accéder ci yenn kii yu bari yoo xam dañ ko dañ ko comme bu fekkoon ñu nekk daal parce que dañu considérer que ne un étudiant bu état rek la am ci bi jël war ko dans une université privée am ci université publique bi en principe favori war nañu ko am dañ il faut public bi nag comme waxtu waa ngi ñuy xool. Mhm. léegi waaw reprise bi nii ak euh, proposition yi xam def nañ ko. Mhm. maanaam par cohorte la ni waaw nee nañ de ouverture graduelle la ñu def. Mhm. mais ñun li ci am solo ñun moom mooy que même bu fekkee dañ def université graduelle reprise graduelle li am solo mooy am na yenn problème yoo xam ne leer na ne moom dina leen rattrapé. yan waaw. problème bi leen rattrapé wax naa ko léegi moom mooy ñi nga xam ne ñu orienté wu leen problème yi université publique publique yi am UVS am nay problème maanaam yaa tout un cocktail boo xam ne bi actuellement ñu ngi koy traîné te loolu bu ñu ko réglé wul aussi est-ce que étudiants yi dinañ ñëw ubbi dans les conditions koy jaajëfal bu baax a baax sëñ Abdoulaye Fane léegi-léegi dañuy jàll ci allo présidence